guddi fukk ak ñaar ci shahru ramadanil mubaarak war a am fukkeelu jotaay ak ñaar ci majaalisu layaali shahru ramadan ci melokaan yi suñu borom tabaraka wa taala di wax li ñuy ragal yàlla war naa nekk ci ñoom ci suratu al imran ci aaya fukk ak juróom fukk ak juróom benn ak fukk ak juróom ñaar muy wax ne qul a unabbiukum bi xayrin min dalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa azwaaju mutahara wa ridwaanu min allah wallahu basirun bil ibad allazina yaquluuna rabbana innana amanna faxfir lana zunubana wa qina azaba annar wa alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustaxfiriina bi asxaar suñu borom ne ñi ragal yàlla am nañ fa seen borom àjjana yoo nga xam ne dex yaa ngay daw ca suuf bu dee ay góor am nañ fa ay soxna yoo xam ne yu laab lañu yoo xam ne dara ci sobe du leen jege mu ne ñooñu ragal yàlla nag fu ñu toll ñi ngi ñaan suñu boroom tabaraka wa ak njéggal di tawassul ci seen iman yaquluuna rabbana innana amanna sukkandiku ci ngëm googu ñaan yàlla ne ko faxfiral na zunubana yàlla yàlla nga nu jéggal suñuy bàkkaar te fegal nu mbugalum safara ñooñu ragal yàlla nag mu tuddal leen juróomi melokaan as saabiriin nee ay muñkat la ñuy doon ñetti xeeti muñ yépp muñ topp yàlla yi lu mu dis dis ci bakkan dañ koy muñ di ko def mel lii ñu doon def léegi ñi nga xam ne seen ngëm yàlla dëgguwut wala ñu yorug naa féq duñu ko mën a matale dañuy muñ itam bàyyi tere suñu borom tabaaraka wa taala muñ bàyyi ay moy ndax ak moyit léeg-léeg day neex ci bakkan nit ki nag muñ bàyyi ko bañ koo def ñetteel ba muñ nattu yàlla yi kon dangay muñ li yàlla digle ba di ko def digle na koor nga woor digle na julli nii nga julli waaye muñ yi mu tere nga ba ko muñ li mu la nattoo nga muñ ko wasaadiqiin mu ne dañuy dëggu dañuy dëggu ci seen ngëm yàlla seen xol la ca nekk lu dëggu la seeni jëf itam day dëggu seen melokaan yi ñuy wan nit ñi duñu wan nit ñi loo xam ne bokkul ak nañu mel di trompe nit ñi waaye lu ñu la wan rek noonu la ñu mel lu ñu la waxit loolu lañu gëm walqaanitiin fu fuñ toll itam dañuy sax ci di topp suñu borom tabaraka wa taala topp gu ànd ak sellal goo xam ne bu ñuy jaamu yàlla dañ cay yëg yàlla wal munfiqiin fu ñu toll itam dañuy dundule te mooy di dépenser ci li leen yàlla wërsëgal gis kon aay yi ñu tuddagun yépp ci ragal yàlla tudd da ci biir joxe ci li nga am ci aay bu njëkk ba waxoon na wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ci aay bi ñu doon jàng dem waxoon na wa aatal maala ala xubbihi tey gis nga mu waxaat fii ne wal munfiqiin kon joxe dafa am solo lool ci ab jullit di joxe ci li mu am ndax alal ak ngëm yàlla dañoo bokk fu ñuy nekk mooy xol ci xol la ñuy sax te ñoom ñaar mënuñu faa bokk yaatu mu ngi mel na tool bi gàncax gi ak ñax mi ñoo bokk fu ñu nekk ñoo bokk suuf si boo fa jëlewul ñax mi wala nga wàññi ko lool gàncax gi du mën a màgg bu ñax ma baree lool day mujj ak mbooy lay tudd kenn du tu wax tool diw ba fekkee ñax ma moo ëpp doole gàncax ga ak mbooy lay tudd bu fekkee nag gàncax ga ëpp doole nag wàññi nañu ñax ma nag mu doog a tudd ab tool kon nu tool ba gën a sete rek gàncax gën a màgge nit kii tam kon xolam lu mu ci gën a génn bëgg alal dëgg la dana wut alal waaye nag bu mu ne ca xol ba ne na ci loxo yi rek ba saa bu ko bëggee joxe joxe ko waaye su ne ci xol bi soo ko bëggee joxe doo ko mën a joxe borom ne wa tuhibbuuna al maala xubban jamma ni ñu binde doomu aadama day bëgg alal lool waaye nag loolu daf koy war a fekk da koy war a xeex wa man yuuqa suxa nafsihi sux muy bëgge bëgge lool lu jóg rek nga jàpp ne yow rek yaa ko yow ku fexe nag ba fekk loolu nag fa ulaayka humul muflixuun juróomeelu melokaan ba nag mu ne wal mustaxfirina bil asxaar dañuy jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala ànd ak melokaan yi mu leen tagg yépp ay muñkat lañ ñu dëggu lañ ay jaamukat yàlla lañu ay joxekat lañu waaye taxul nag ñu naw seen bopp defe na am nañ benn cër am nañ benn wàccuwaay fa suñu borom téewul dañuy xeeb seen bopp jàpp ne ñoom borom bàkkaar lañu moo tax ñuy jégglu wal mustaqfirina bil ashaar rawatina ci waxtu njël muy waxtu yi ñuy yewwu di xadd boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa doon soññe ci xadd ne tasaxaru fa inna fi saxuuri baraka dee leen xadd ndax xadd yi barke ngi ci barke ngi ci ñam bi ndax dana la dimbali ci bëccëg bi waaye waxtu wi ci boppam moo am barke waxtu woowu ñu yeewu di xadd muy njël waxtu wu njël kooku nga jóg ci di lu suñu borom tabaraka wa taala lu rëy rëy la waxaat na ko ca suuratu zaariyaat wa bil asxaari hum yastaxfiruun fi mu ne wal mustaxfirina bil asxaar asxaar mooy njël lu jiitu fajar muy heure yi xadd ba tax na xadd bi sax noonu lañ ko tuddee saxuur lañ koy tuddee ñamu njël kon nag waxtu woo ku ci yow na nga jéggalu suñu boroom tabaaraka wa taala bari looy def istixfaar waxtu woowu istixfaar moo fi gën lépp même jàng alquran waxtu woowu istixfaar ko fi gën a yeey ndax moom la suñu borom tudd ci waxtu woowu jagleel ko ko kon nag ñi ragal yàlla suñu borom tuddal na leen melukaan yi nga xoole yow ba xam loo ci am ndax yow muñ kën nga am muñ da muñ jaamu yàlla ba di ko def danga nga muñ mooy yàlla ba di ko bax bu la yàlla nattoo da nga ko muñ ndax da nga dëggu bu amoo dara looy làq wala looy nëbb ndax kat dëggu yow xiyaam bu yàlla dajale jaam ñëpp day wax ne yow ma yawma yanfa'u saadiqiina sidqu tey jii ñi dëggu woon seen dëggu ga dana leen jariñ keroog dëggu rek moo fay jariñ ndax leneen loo defoon bu ca dëggu nekkut loola du lu wér suñ borom du ko nangu ndax naa féq dana def yi ñu def yépp mais li koy wóotale nit ñi mooy dafa dëgguwut naa féq bi dana julli maanaam dana woor yu bari dana ko def li jullit ñuy def waaye nag ñàkk a dëggu mooy tax lam def dara du ca baax kon dëggu googu ak nag jaamu yàlla gu ànd ak tooxlu waxu ñu nekk ci jaamu yàlla goo xam ne bu la neexee geestu bu la neexee wax bu la neexee lu la neex def ci biir julli kooku bu ko ci alxaanitiin alxunuut mooy jaamu yàlla goo xam ne day ànd ak mokk toroxlu ci kanamu sa borom tabaaraka wa di joxe ci li nga am lu mu néew néew bu ne li ma am bariwul yaa ngi nekk ci daara ji nekk fak say moroom la léeg nga am loo xam ne amuñu ko génn ci li nga am lu néew sax jox kenn may ko loolu loolu rek dugg nga ci wal munfiqiina bil asfaar wal munfiqiin dugg nga ci wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ñëw nag ci wal mustaxfiriin nag di jéggalu suñu borom tabaaraka wa taala ndax kii jéggalu li muy tekki mooy nawut boppam dafa jàpp dafa ami bàkkaar te itam dafa ami bàkkaar fi alal ndax moom kenn mënu cee mucc suñu borom tabaraka wa mooy jéggal jaam bi ko moo tax mu wax tuuti ne wasaari'u ila maxfira saabiqu ila maxfira course bi yépp mi ngi jëm ci am rek maxfira moo tax ko faatu it amul dara leneen ko ñaar lu may jéggalul ko yàlla rek allahumma axfir lahu gis nga Ibrahima ñaan ko rabbi xfir lii rabbana xfir lana wali walidayna no ñaan na ko rabbi firli wali walidayya wali ma daxala bayti kon ak njëggal mooy li nga xam ne moom la jullit war di ñaan fu mu di ko ñaanal itam ñi génn àdduna loolu mooy jotaayu tey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ramadan weeru koor ñëwaat